t h Tendi combat. Number two, number two. Tunu daje wonde daje wonde kande bi. Koku mo daje wonde nga xamna ni moy pour ñaax ak jambaru. Mo daje wonde yow xamba fe jeten tuba. Wa ndey tan ci ne bobu ko jëgë bëgg. Dala ba nga noru moy bayi ko la sun dor. Wala daje tagala ku dal ba ko tan. Ay manen bu bu. Islam kendine teşhurlar. La ilahe illallah. Evet. न noo waajale combat bi. waaw préparation rek. def na li ñu war a def quoi. non non non may leen ko mu wax. làmb ji du fii may ko mu wax. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi julli samay maa ngi julli salallaahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu samay ñaari waajur quoi. combat bi nag non doo fi di wax ju bëri quoi adversaire lañ ma jox te xam naa ne champion la mais nag dina xam dajal Sélé Mbalé far force moo nekk nii. E ya, aí, Ki kii koy ñaan lagi la quoi bu bés baax na dëngal quoi taxaw bëri samp rek ñu jàkkaarloo quoi loolu laa bëgg ma jàpp ko daan ko jël bu amul fenn loolu rek laa koy ñaan quoi. jërëjëf Sala Baye sa waay nee nga sa bu bis ba mu la daan na jël kii day wax lu ko kii du ma moroomam kii paa bëñ yëpp dañ na yow paa nga sa bëñ yëpp dañ na nee nga man nag maa xeeb mais baax na bis laa di nga xam léppay dëgg bilaay wallaay éey bii combat sa waay nee na paa nga danga ko xeeb waaye bu dimanche nga xam ne lépp dëgg la na jàpp loolu rek lamb ji loolu la demee quoi grand contre producteur te nag grand ñoo boo xoolee sim combat passé dara loolu la seen nax quoi diggante ma seen ak Sa Thiès man nag man nax yow la booy nga man mag laa sama bëñ ñu ko dindi xool kii toog man na ma seede bëgg temps yee passé ma amee combat mu ngi nii toog champion bi toog nii si kanam gën taan kontaan bëgg ma sama timi toj loolu mën na ko mu damaa bëree ba xool ba ndiroog mbër maa sama yaram lépp bëree si nekk di nga la la la dañ lu amul jël daan daan yow la ko wax sa rek yow sa ano bi tikk ko ngay xale xalelu sa ano bi tikk ko ngay xale xalelu yow manga so tësani koo xool xal manga billaay wallaay Saala nooy waajale combat bi combat bi daan rek jàpp daan looy waajale combat bi moom du jàpp sax daan day sóob rek sa mobilisation ak say billets noo ñu def ban heure looy wax sa fant yi ñu mobiliser ko ak ban heure la ñuy sama fans yi maa leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp ñoom jàppale nañ ma combat i dañ ma see jàppale trop billaay wallaay kii paa la kii paa la yow paa nga si boobu yow doo jàpp sax bay daan yow deux minutes la may deux minutes looy wax sa fans yi sama fans maa leen gërëm maa ne am ma seen fay ñii am ma seen fay am ma sax lu ma war a wax jërëjëf looy wax sa fans yi waaw maa ngi gërëm waa Mansa Ngelaw rawatina waa syndicat bi ak sama mbokk uréy encore may waa Sénégal sama mbokku de ñoo ma jàppale quoi ñoom Lamine xam nga ñoom Lamine ñoom Lambu ay ñoom Baye Jibi xam nga maa leen di gërëm di leen sant di leen nyom parce que ñoo jàpp ci combat bu dul woon ak ñoom xaw du ma esquive ñoom ñoo ma may loxo bo dañ may topp fa teel la ñuy jóg man dem contact barki alxuraan karim fayal la may ye mbër fo ne dugal entraînement ji ma jóg ànd ak ñoom ñoom tefes xool moo leen di gërëm dama leen di gërëm waa Sénégal yi ñoom nyom ma tax ñoo ma loxo yéen ñoo teg loxo yéen kii xool kii doo moromam kii ko jàpp naan ko billaay wallaay talaay na dëggal boppam rek o kaay looy dem looy dem kaay fii yow bu la neexee nga ñëw ñu ko léegi ma daan si une minute ay jëw kon mbokk yi ba dimanche jërë ngeen jëf jaajëf xam naa ni dina ñëw bu àndee ndogalu yàlla loo koy wax parce que ay supporteurs am ñu ngi fi xam naa ni avec euh, euh, euh, TV ak RDV TV yaakaar naa ne bu ko jàppee suba loo ko wax dina ko xam loo ko yóbbante. waaw bisimilah avant lépp Tonge maa ngi lay nuyu di nuyu samay supporters di nuyu ñi ma àndal mooy waa waaw xam na am na am naa bu baax a baax waaw sama adversaire lu ma koy wax lenn la su bés baa teew rek waaw luy neex moom maa koy def waaw moom na ñëw daanu rek incha allah pare nañ bu yàgg looy woo ci bis bi ñoo ciy woo waaw bés bi woo mooy waa Sandiga waa école 3 waa koñu ngéwél waa waa privé Ah, di nuyu sama waa dëkk bu baax a baax muy waa Passy waa Kër Laay sama dëkk ñoom maa maa di nuyu bu baax a baax waaw di am contentement bu baax di nuyu docteur waaw ndax mu may jàppale bu baax a baax maa ngi koy wax ne bu dimanche xolam dina docteur bu Sandika ma bi ma bi. boy bi kii xam ne matul nit kii xaw ma moom la xamul mu doon nii. ah Isbak. kii Paa Ndour la romb na fii man sama niveau romb na fii man sama niveau yow gis nga ni ma bëree man sama niveau romb na booy yi ñii kenn xamu leen ñu ma dëggal ñii. Jalla rek sa waay ñeme na la nag. ah waaw c'est normal comme bët lay woote kay. waaw mooy loolu dinaa ma sant yàlla julli suñu déglu sant sama ñaari waajur du booy ah. mafia bi ah di bëgg sereri, yi séeréer yi séeréer yëpp bat Serigne Touba Mbacké képp kuy capitaine rek dëkk Gelor maa ngi lay woo si combat bi ah nga jàpp si waaw noonu la fa demee nag bilaay Ismaël ñooy woo ci combat bi waaw combat bi moom moo comme dab rek comme yeneen combat yi fi jaar comme lay waaw di bëgg sama gars yi mafia onka bi aw ma seen fay boo yi su ma jógee dañuy jug fu ma dem ñu fekk ma fa ba pont Sarène ba pat fu dem ñu fekk ma fa ma seen fay bu yaru ma daan ko gunge ko bu yara di góor ma koy dambu bàyyi ko mu ñibbi. looy looy toll ci loolu. ah léegi soof rek léegi soof rek waxamboon la rek waaw. waxamboon la rek waxamboon la rek day soof rek bat Serigne waaw mu ma xamul na ma laajte ko waaw billaahi. léegi ñan ngay woo ci combat bi. waaw maa ngi woo ñëpp di woo séeréer yëpp bat Serigne Touba képp ku nekk séeréer rek nekk Mbour maa lay woo si bés le 19 ah amul waaw amul leneen bilaay. lay wax say supporters ban heure la ñuy ñëw. waaw samay supporters moom pare nañ bu yàgg bu làmb yi nekkoon suba sax foofu la ñuy fanaan. Mhm. ñun pare nañ bu yàgg ñun làmb la ñuy topp topp ñu leneen. Mhm. kii nag daf maa xamul man wéru ma man booy ñu ma xam yëpp duñu ma jël. billaay wallaay taalaay booy mbuur yi ñu ma xam yëpp duñu ma jël. wéeru dem njaga ñaaw googu nga dëkk nga laajte nguñaan ak fa nga dëkk foofu yëpp nga laaj boo see booy bool bi dëkk nguñaan nga laaj ko moo ko la am mes njaay man booy nu mu souvent benn booy amul benn booy may benn benn neexal neexulu kenn da ngay yaru ma dàll nank nga yaratu ma damu la. kii day wax rek bari Serigne Touba kii xam naa xam na xamuma ko waa moo tax muy waxee nii ko waa man a am xamuma ko waa man lii mooy sama onzième combat mosuma daanu comprendre. ayca joxante leen loxo sama gars yi ayca ba dimanche ayca jërëjëf. logo koy yóbbante ak loo koy wax ak no wajale combat bi asalaamaaleykum mbokk yi ma ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam nuyo bi nak ma di jital khasim japp na ci combat bi bu baax a baax waaw sama adversaire mom limako wax bari wul bari na xamal na ne du ñew ndax ni rek la mën a ndax tay la xam sama tour motax du mën ñew mbuk sante bi rek la leen jox muy lan muy boyka man la boyka fàq dara bin lay ko les xànc daani seuk seuk da ma wax une fois ma ay gatem mënoo ko dégg di ñew koku fi dëgg moo koy dëkku boy Tak bu suur dina xamne boy kala booy ya lah, barke yalla affaire bi xol do sax la bëggan mais tapel la xaru la dum lañ moomul mbëkkantee wi ma suur baa dama koy ñaan gën wax ay mbokk mu taxaw deugal bopam ma daan ko jël bu neex bo xamne ne ñëppay kontaan bu yëngalee na ma daan ko dam ko bu neex sama wekki bëñ bu tegal leen ko fi barke yonenti man la boy ko faax daru lu lolu ñun lu ci manki dara manki wu ci batal na lepp lu manki wa onkat motaliko ta xamna dara du manki billahi nuyu wa onkat gep di nuyu mafia bay ne daw ta dul ragal barke yonent bi di jàpp di daan bu bis baa dama koy daan ko keneen ku ñime tam nga ñëw ñu la daan la gaa yaa nga ne kenn amagul combat ay mbëri la ñoo man ñëpp ñoo gis fi yëpp ñoo leen man ñàng ñàngul gi yëpp bu subaa ñëpp na ngeen dëgg seen bopp taxaw ñu ko daan ko isi bag di ko ñaanal tam bu suur mu jàpp booy bi daan ko moo ko man moo ëpp doole man la booy ko faaxa daru keelu saxaji ma leen nuyu yéen ñëpp man la boyka jarul laajte boo ko xanaa duggoo ma fi à oncat bi wala ay luuli kër Balla yooyu noonu booy bi xoolal dama koy daan ñan bi lu ma ci a wax leen rek la bu suur baba na jàpp ci rek ngir yonente bi na ñëw ci combat bi ma daan ko nànk loolu kese laa koy wax jërëjëf kontaan nañ ci yow ay sa boyka cham mo len di nuyu di di nuyoo fi ci mairie bu ngour di nuyu nak tay ki nga xamne ne fi indi muy promoteur bu mag bi Maniang la signature bi mel so xolé ni nga xamne ne décor bi non la mel a ah, grand mouri sama yaram dafa daw wante nak ma ngi nuyu sama tons grand mouri diko xiar diko contane di nuyu ñaga jox ndanan bu mag bobu le Messi waye ma ngi nuyu Babs ndanan bu mag bobu bay Mor maa ngi lay nuyu di la di nuyu sama grand ki nga xamne moma dalal muy grand grand grand Cheikh Fall maa lay nuyu di la siyaar di la yow suma la gisee sama xol day sedd waye di nuyu grand Omar Diaw ndanan bu mag bobu lambaloog bu mag bobu waye di nuyu president ki nga amel na ko ndukal ki nga xamni lamb amel na ko ndukal koko na kendo ko lache koko mooy gram Meissa sanjay le vice president di CNG koko su toge ni dañ koy nuyu dañ koy ndax buñu faté barki barki mo nyaay drapeau chef d'état la indi fi ci mur nga xol kérok ni stade bi mel nga xol kérok ni wa Mbour gene kérok sama yaram dafa daw njaga jox di wax Mbour ko lamb la kon mañan tay, su indi journée bu mel ni fi tay ah dafa wara sap sap ak lamb wante ñu ngi ni ñepp di siyan ñëpp di nuyu sama jigéen na la lion borom petit côte borom Senegal ndanan bu mag bobu Grand Maboury waaw bul comprendre ngi ni ah bul comprendre nak ko ko deg xamni mbeur la bo xamni ah di lamb xala la lamb booy la barke Serigne bamar man damay daw rek um amu ni ara mais lima jaxal ah sa adversaire ñewul te sa adversaire kom ko ñewul nak ah da ngay nuyoo rek nuyu say supporters nuyu ñi nga xam ne ñoo la tëgg tey ak tey lan ngay wax waa Mbour ak combat bi nga jëm yow loo si nar. non loolu noonu moom la ko sori man euh, damay daw rek aw ma benn arrêt te damay dugg ma fi am balaa ma fay génn ñoom ñëpp laay tas dama koy tas wasaar parce que Serigne Fallou. billaa walaay. mais adversaire bi nga jël est-ce que xam nga ko. lijjante wu ma ko sax billaa walaay lam moo ñu boole rek. kooku mooy borom dara booy de. moom amu foofu dara moom xam nañ ko sax ñu ko ñu ko ñu foofu noonu ñoo xam nañ foofu noonu amu fa dara barke Serigne Fallou dañ koy yebal foo xamante ne bàyyi foofu amu fa tus billaahi. ah dégg loolu garaaw ma bëri kon xale bii nii xale bi pare na mais adversaire am ñëwul kon yow looy tàggoo looy nuyoo. non di bëgg sama gars yi di leen amoo seen fay quoi di bëgg waa Ngunjaan man damaa déglu fu sori. ñemelu metti barki alquran illa wala ah ngunjaan nak champion yag ya na fa jugé xalé bi su ne ngunjaan la jugé ah mbeur la ndax ngunjaan da ko lamb la wante yow lan ngay wax say supporter ak tamit nan ngay wajalé bis bobu su nekké am nga ño xamné tamit dañ la jappalé ci bëss bi ah nuyu leen leen wa di nuyu ñepp bayuma kenn barki suma limé damay joom ay may eh, nuyu ñepp wa onkat gi yépp di leen nané bay ya, eh, seen bor mi ñew na mu ngi ni saay ni fep tout ça lepp jour ba ñu ñëw yëngal foofu noonu moom foofu noonu yëpp dem ñibbi moom su jël nañ moom quoi amul leneen barki yàlla. jëf dégg nga loolu xam nga loolu am na solo wante grand ma buri wax dëgg wax yàlla kontaan nañ ci yow yow suñu doyen nga te yaa ngi ñuy won yoon bi wax dëgg am nañ mbégte bu baax taxaw fii jàkkaarloog sama ndaanaan bu mag bi Njaga Joox ak Babacar ndaanaan bu mag bi waaye maa ngi nuyu waa Kër Baye Cheikh yëpp di leen siyaar di la wax bis bii dinañ si saf sàpp grand ma jërëjëf Balla jërëjëf. site internet yi nga xamanteni dañ fay nek di nuyu babakar suñu rak di nuyu Jaga Jox également di nuyu jarbar bi nga xamanteni moy Nogay Fall yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu ku ci nek sa tur ak sa sant Balla jam ñu ngi lay nuyu bu baax ziar la di nuyu nak sama jarbaar boobu nga dendal bay Mor man de ma ngi ñaan bepp mbeur bo xamanteni ci signature bi. convoqué nañ la nga bañ a ñëw sa adversaire ñëw sa adversaire bi ñëw yàlla na la daan parce que lii bokkul ci respect promoteur tëgg làmb bëgg koo jaay bëgg làmb ji ñëpp yëg ko yow nga nekk mbër ju jox la avance ne la jour tel la ñuy def la ñuy def euh, signature bi nga toog sa kër bañ a ñëw li tàngamlu mbër mu ko def maa ngi ñaan yàlla nañ la daan ma ñaan jërëjëf puisque lii

eh dugal leen ko dugal leen parrain bi Cheikh Gaye la dugal leen ko sama gars yi. ñu ne le 19 mai. naa ko nii rek comme mbër la quoi. Mm. mbër moom mënuñu koo ñàkk xam waaw. Mm. te xam naa ko lan nga xam ci moom. non xaw ma ci moom lu bari nag vraiment xam naa ko ni gis naa ko ni mbër la moo war a bëri moom a laa xam ci moom. est-ce que xam nga bëre door la. waaw bëre door la bëre door ah bëre door moo gën a yomb bëre simple. bëre simple moo gën a métti fu bëre door bëre door dafa yomb yomb na gaaw na baa ñëw rek jàpp ko ko incha allah. <laughs> leen to déngale ñagas wax nee na bis baa rek mu ñew japp la daan la jëmul sax mu lay xam wa dégg na lu mu wax bu baax baax baax ginaaw bu sante yalla jël ci yeen bi sante suñu ñaari waaj bu sante papa tudd suuf yalla nako yalla yàlla yërëm te xare ko àjjana sama yaa yalla nako yalla baay bàyyi fi ba ci kanam bo mu fekkee suñu jël bu baax baax ki moom amul leen lu may wax ak mom diko ñaanal wëru bu bari bari bari bari bu fekke ko mbaa bi rek loolu rek la koy ñaan yaang koy ñaanal wër dégg mu wax wa dama ñaanal wër rek bu bes ba inshallah rabbi wa man tamit ma nga ñaanal wër bu baax a baax bu bés ba incha allah ñu bëri ko ci fulla fayda ma daan ko incha allah mais boy xol affaire ragal yi bàyyi xoolal du ngeen du ngeen du ngeen di ragal nii du ngeen tàngal affaire mu tàng wala Cheikh ñu lam amul leen luñ ci ragal ki adversaire comme adversaire rek dañuy ñëw incha allah lañu bëri su bés ba dañuy def fulla fayda lamb ji suñu bakkan lañu jaral barke leeru alquran bakkan billaa wallahi wa tallahi oh, lamb ji manam duñ nekk fi di wax sax dañuy bàyyi ba jour ba ñu jëf li ñuy jëf combat bi xam naa fi ma yóbbu bu baax a baax a baax du combat bu may ñàkk damay bëri fu la fayda. lento booy bi nee na moom jëlul kombaa pour ñàkk ko. non combat bi yàlla daa ne daa am erreur bu ñu rek moo tax ñu jël combat bi wër na yàlla mais lii sax newuloon comme suñu combat. billaay walaay yow xam nga loolu bu baax sax billaay. kon lan moo leen boole yéen ñaar. non fu mu daa lu ma war a defaraat tuuti rek. lu ma war a réglé waat tuuti rek moo tax ñu. Ah, léegi boo ko war a réglé yow ñagas nga koy réglé. waa si moom laa ko réglé si kàttan yàlla nee dafa bëgg a réglé moom itam te ci la koy réglé ah waaw baax na ba jour ba na ko réglé rek na ko jéem a réglé rek xam naa du sotti moom keroog nee naa ko si rajo ba keroog da ngaa juum da ngaa juumoon mais di nga juumaat billaay dina dina juumaat billaay wallaay taala day juumaat waaw maa ngi woo waa Onkaat yëpp nag di woo waa Onkaat yëpp di woo sama waa Ikiri ñëpp nañ ñëw jàpp ci combat bi ba jour ba incha allahu rabi ñu def li ñuy def rek mu jeex maa ngi woo ñoom Amet sama gaa yëpp maa di woo bu baax a baax ngay ñëw jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax teel a ñoom Ibou ñoom ñëpp ñu teel a génn allah defaral waa ji. wooteel. waaw maa ngi woo waa Kër Samba yëpp ak waa Yego ak waa Relais maa leen di woo bu baax a baax ak waa Déggo maa leen di woo di nuyu sama grand yi fi ñëw ñoom Sidi ñoom Wës ak ñoom Ëmma ñoom Baawmal ak yu mel ni suñu waa kër maa leen di nuyu bu baax a baax mooy nguur yàlla ba yàlla mën a nekk ci combat bi mu jëm nii. ñom général ak ñom Ama Baldé ñom ki ñëpp ma leen nuyu équipe yépp ma leen nuyu ak njool ñëpp ma leen nuyu ci carton yàlla. aja dugalal ma booy. damay sant dama sant waa Yiri Bagala. di sant ñu Marcel ñoom ñëpp ma ngi sant bu baawa a parce que keroog Bagala ma wo xam nga def ben acte bu rafet mo del ñew fi des fois boo di la may contact mu fay dem gars yi si jàpp bu baaxa baax ma ngi wax sant way équipe Bagala bu baaxa baaxa baax a baax. ok waaw. yóbbu ko mu dem. jërëjëf. yóbbu ko. di nuyu bépp koo xamante si amateur làmb nga teew fii ñun la parrain bi nga xamante si ni Magnane production dañoo jagleel bis bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne turam ak santam. jërëjëf ginnaaw sëñ Cheikh bis bi. bis la boo xam ne ci bis yi la bokk ndax promoteur bu mag moo la ko tudde euh, nga ñëw ci teew ànd ak waa Folox mën nañoo ànd ak waa Folox yëpp lan ngay yëg ci bis bi tey. waaw bis bi Maniang dañoo jox lu ñu bëgg diñ ko ñaanal bis bi yàlla na yàlla def mu fekk ñu ci jàmm mu réussir totalement. ndax euh, kim ko jox dafa fekk ni doomu Folox la. Mm-hmm. doomu Malicounda la. Mm-hmm. te dañu am loo xamante si nii. suñu leader ki nga xamanteni le maire Maguette Sen le maire du département de Mbour dafa ñu yàgg taxaw yagg ñu wax ni fepp fo xamanteni mom taxaw na fa day former ay lieutenant yo xamanteni fepp fu mu taxawul mom, buñ fa taxawé mom ñu mëna fess place am kon ñi ngi leen di interpeller ni drapeau bi nga xamanteni si Magnang tudde nañu ko muy le 19 mars dañu bëgg commune malikunda, ñepp nga xamanteni département Mbour gep

ci li nga xam ne mooy développement réew mi ñaata mbër lay tëgal ñoo xamante si ni tey jii ñi ngi ciy am loo xamante si ni tey jii kuy wax développement waral a ngaa jàppale ku mel ni Magnang production ndaxte carrément xale bu am engagement la mënoon na koo def ci leneen mais ñi ngi leen di wax ni le 19 dama ne ku yeex doo am place ku yeex doo am place parce que ñi mu ko tuddee commune Malicounda ku daan mobiliser bañ naan la kaay mobiliser loolu laa leen wax sànq ndax Maguette seen ku ne xam na ne carrément ne mobiliser rek commune Malicounda la fekk baax. Mhm. te bu bis bu dinañ xam ne tuddee nañ koo xamante ni mat na lañ ko jox ñi ngi ñaan yàlla nañu yàlla may fekke ak tal ñëpp fekke ak tal. ci darajey Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf sëñ Cheikh Mañang euh, dégg nga sa parrain sa xarit sa doomu ndey nekk bras droit màgget seen nga xam ne bu jógee Falox jóg bu jógee Malicounda jóg mais bu jógee également Mbour jóg. nga dégg ni mu wootee ak taxawaay bu rafet bii mu taxaw nii lan yan kàddu nga ci sànni ak nanu ko yëgee. waaw Cheikh ñi nuyu ñëpp di wax euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal parce que waxoon nañ li ñu waxoon fële ci remise si drapeau bi mais wax waxaat yàqul wax di gërëm ñëpp di gërëm suñu président Maïssa Ndiaye ci kaw di gërëm Assane Ménagère di gërëm euh, tey suñu président Serif Diaw di gërëm Omar Diaw di gërëm euh, journaliste yi fi teew yëpp ku ci mel ne yow Cheikh Fall Mabouri di gërëm staff mañu production bi di gërëm bari di gërëm public bi nga xamni ñoo nekk ci ginnaaw di gërëm suñu cameraman yi nga xamni tay ñoy jallale jàllale yëf yi di gërëm ñaari mbër yi muy digënté suñu bu ndaw bakala Casamance bi loolu jallé di gërëm Cheikh bu baax parce que xale bi nga xamantani ni euh, xamna fi jëm te ñun comme ni ma koy waxe rek amna lu nekk ci mom lu nelaw ñu war ko yé ndax nit la ko xamantani ni ku jar a xel la mhm. nit la ko xamantani ku xam fi jëm la mhm. nit la kuy dimbali ay doomu kon donc buñu jëlé cër bi jox ko jox nañ ko ki nga xamni mom lañ ko wara jox di ñaan yàlla ñu fekk bis bi ci jàmm ak salaam le 19 mai ci CELEPS bu Mbour li ñu wax ñëpp ñu def délégation yi ñëw teel a ñëw teel a jël place teel a ndax xam naa ne bu ñu yeexee seex moom dina ko duy ba mu fees loolu moom man wóor na ma parce que dem naa këram deux fois ba léegi foofu kenn xaju fa kon donc loolu mi ngi wane ni bu ku teew la ñëw dama te bi la man xam naa ne fonk na bis bi incha allah ndax xam naa lépp lu ñu war def nañ ko bu dee sécurité wut nañ ko ba mu doy nañ ko organiser jaar ba mu war a jaara yoon te ko xam ma ne production xam ko ci organiser kon yàlla ñu yàlla defal jàmm ba dimanche incha allah. incha allahu rabbi jërëjëf Mañang di jërëjëfal nag képp koo xam ne teew nga fi parce que bis bi moo toll noonu tey ñun Mañang dañ ko namoon bu baax a baax président Meyssa Ndiaye ñu ngi lay félicitation pour la deuxième fois nga indi drapeau chef de l'État ci département de Mbour lenn rek nga ñu deseel te boo ñu ko defalee desalatoo ñu dara bis boo jëlee CEDEAO nga organiser ñu ko ci département Mbour fii ci commune bi desalatoo ñu dara ci wàllu làmb ndax érage bu mën ni doon rek taxawal nga ñu fa taxawaay bu rafet kon loolu rek la ñu wax ne boo ñu ko defalee amatuñu lenn loo xamante ne nii desalati nga ñu ko. drapeau chef de indi nañ ko fi deux fois jël ko benn yoon ñàkk ko benn yoon kon li nga xam ne mooy drapeau chef de CEDEAO toujours Dakar moo koy organiser pour la première fois nga décentraliser ko indi ko Mbour. boko defé defal nga ko ñun ñëpp Omar. waaw Cheikh il est important aussi de remercier ce jeune promoteur Pafal Pafal à chaque fois bu ak duggé ci li nga xamanteni mom moy bis da fay melni mom moo gëna bëgg li nga xamanteni mom moy bis mhm. li ci ëpp ci paré ay Magnang di am Pafal mi mom moom indi. Mhm. waye nak fi may terminer moy wax leen né boo moytuwul dinañ gis un boo xamante ni moo dàq mobiliser li nga xam ne mooy mbër yi mooy Cheikh mi. Mm-hmm. mënu na ko parce que euh, feeñ na ba noppi Omar parce que Cheikh ku ko gis xam ne nii lii muy wax ni def cee dogu te man xam naa ne bu ñëwee ku mu njëkk a dugg boo moytuwul boo duggee di doo am foo taxaw. layla ilallah Baye Fall bi ñëw na. layla ilallah Baye Fall bi ñëw na. yu tàmbalee gi seex man damay géwalu Serigne Touba waaye nag ah ba booba woo ngeen naar ci goxum sow waa xel koom gépp waa falox ay nu maan bu ngeen wooyee seex woo ngeen Maguette Sène woo ngeen président Bouré Diouf waaye ma ma ñang ñu lay sant di gërëm ndax askan boo daralee kenn daral nga ñëpp Serigne Touba sama waayee gore sa sa ngoog aliyaa bi xam sama mafia bi waa Rapsi boo bàyyi ma kenn woo naa gaa yëpp nag waaw képp ku déggul sa tur xam ne nag du yaa ma xam woo naa gaa yëpp jërëjëf Bangaram ñu woo ñëpp woo waa tefes bi booy yi sama woo samay waa koñ woo ñëpp ndax doomi dëkk bi borom dëkk bi mooy jóg keroog sama koñ. sama open de presse def naa ko keroog service l'état bi moo tax mais dama ko duy ba mu fees dell mais nag sama ko ñëpp ñu may xaar nde borom dëkk bi mooy jóg mais nag moom ma koy sant di koy gërëm yàlla may ko yërëm wér ak wérle da sama olof daa dese leer quoi ndax doomu soose ak joolaa bi Casamance bi nii waa direct bi moo tax waaw mais dinaa ko xamal leen le jour yi ma koy ñaan yàlla may ko wér tal rek nde géew bi man dama man dama man ragaluma deret waaw kooku moom góor ragaluma ko booy deret dama koy naan kooku ragaluma ko waaw du oo ñëpp sama mbokk soose yi mbokk séeréer yi mbokk olof yi mbokk ñëpp saalum saalum yi nekk tefes sama gaay yi bàyyiwuma leen bawlu bawlu ñëpp waaw ñoom Assis ñoom Ous gaay yëpp su ma limee damay juum ñoom Mor gaay yi bàyyiwuma kenn ñëpp ma leen di woo si bés bi borom dëkk baa jóg retour bi waaw ma leen di jërëjëf jërëjëf kon ñu ngi dimanche ci seleb si bi bu kenn des ku añee sa kër nag boo ñëwee boo fekkee boo amul place yaa ko teg sa bopp